asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi ñu leen di nuyu leen ziyaare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 lifi fi xew ci guddi yëgal ma ko fa saasa ci mbetteel ga joxe naa ci ay kàddu lu doon digal ne ñëpp dal te dellu seeni kër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 dal naan xam ne lépp nag ci ñàkk xam la jógee ndax dëkk bu sell bi ku fi nekk te xamoo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 ñun ñi fi nekk war nañoo dellu ci suñu bopp seetaat bu baax euh, sunu nekkin euh, ci barab bu sell bii feetu ku baax ku sell kii mën naa deme noo xam ne amul góor amul jigéen amul gone amul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 dafa nekk ñu xam ñu bokk fi nekk alhamdulilahi rabil alamin dëgg ñu xamul a ngi fi waaye ñi xam moo ëpp ñi nga xam ne eh, eh, sëriñ sëriñ bi dëggu na ci seeni xol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 bëgg bëgg bëgg a bëgg aar dëkk bi ci loolu waaye yàq gii nag day yàqute gu rëy xam ne moo gën a metti yàqute yooyu kon nag eh, ku fi nekk te sa xel nekkul ci lu yàqu ak yàq ak yàq ak yàq il faut ñu wax ak yow il faut ñu bàyyi xel il faut ñu xool baxam ci loo nekk lu wuuteeg ni ñu war a nekk ci dëkk bi te dara mënut a umpe kon ci labiré rek euh, mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi bu bokki dëkkandoo yi nag ñi ci dëkk bi ñëpp ak foo mën a jógee ak loolu loolu fi mel di ñëpp a ngi ci biir dëkk bi kon nag noo ngi woo noo ngi wax ak gën a xam barab bii ñu nekk jiima gën a xam nañu fi nekke jox am xorma barab bi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 jéem a jox dëkk bi xormaam ji nga ko war a ji mu yellool ji nga war a jox euh, yàqu yàq yàq démb gi moom xëy na yàq yu bari mën na am yàgg na fa am na fa loolu ci ni yàlla binde dooy dig doomu aadama waaye nag jóg di yàq te maa tey loolu kooku moom du luñ mën a seetaan ndax maa tey rek la ndax weddi baatu kilifa loolu maa tey la te loolu luñ mën a faj la nit ko amul kilifa moom lu ko neex def waaye lu neex ku mën a doon mën na ko ko def li ci am solo daal mooy di nu góorgóorlu fas yéene dooni taalibe di jéem a yor jikkoy taalibe di jéem a jox la yey ci am kilifa nga jiima a yooyu ci kilifteef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 ak yàq loolu du nu ku mën ñàkk gis di ko di ko di di ko sàmm dëgg la da loolu day day day am ñu di ko gis ci ci ci suñu bët loolu nag mooy mooy li nga mooy mooy li nga xam ne moo tax de su ko mën a ñàkk a ne dëkk bi moom.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 sëriñ bi boroom moo ci jëfe sañ-sañam lépp lu baax luñ mën a yor mën a jëriñoo ci àdduna wala ñu mën mën koo jëriñoo ci àllaaxira lépp ngi sëriñ bi kon nag bu amee tawfeex ndax xamul lu ko may waaye am nañ tawfeex loolu ñi ma ko bokkal xam nañ ko kon nag nañu xam ne barab bii du lu mën a xool mukk ku indi yàquteem di fi yàq loolu duñ ko nangu mukk nag du ndax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 di àgg ci maa tey loolu mën a nekk kon nag euh, euh, noonu na koo wax waxin bu gën a woyof ndax ku xas dugg ci dëkk bi rek moom eh, eh, am nga am nga am nga am nga am nga am nga xéwal ba noppi ndax dëkk bi wax ju tedd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 te fii ñu ko fii lii ñu santaane loolu lool gisuñu leen ñoom loolu mooy seen ñu xamuñu amuñu mën pexe loolu lañ gis te jubluwu ci dara lu nit ñi muc waaye foofu la seen xel toll foofu pexe toll te ñoom ñi adduna bépp ci marché loolu bu amee dafa ma sa xam ci maanaam rek kilifa yàlla koy def kon kilifa boo defee wartifam ni kii lu nii nga xam ne moo fi moo fi moo ci jamono jii ñu toll man duma dara waaye tudd gi ñu may tudd di tudd Sëñ Tuubaa nag tax na il faut am naa wartif am na sama am na wartif war ci man loola nag mosuma caa jóg te boo ca nekkee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 loolu nag la ko andi moom il faut que ñu jéem koo xam te daal ko jéem faj te lu yomb la ndax nit ci dëgg yomb naa mbiram yomb na ku déglul ci wàllu ci ku déglul sa digal kilifa ci wàllu diina gi digluwoo seen digal kilifa ci wàllu adduna ji kooku sa mbir day yomb dal ci sa kaw day yomb lool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 du xalaat ak jéem ko fay jëlee loolu it yàlla boromam moo ànd ak moom mënuñ ci dara loola dem ba agsi fii kon loola rek sëñ bi moom mosu leen a xañ ci aw seen lu day lii day ci we ajo ajoo ci moom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 nga nekk fi nga jox ak dëkk bi nga jox ko akam jox ko orma ngir ormay sëriñ bi mu fi nekk ku ko def alhamdulilahi rabbil alamin leen bëgg suñu bopp rek lañ leen bëgg ko deful nag il faut que ñu diggale ko ak yow li fi am dëkk li fi dim dim moom na fa yem maa maa nag ala kulli haal noog ñooma noog ñooma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 kon nañu góorgóorlu bu baax delluwaat ci sëriñ bi loolu mooy delluwaat ci yàlla góor la góor fas yéene góorgóorlu gën fas yéene gën a mën a nekk ci li war li leen war a nekk noonu rek la demee amul du dara xew àdduna nii la basa demee naka jekk naka jekk naka jekk lu ne am na fi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 nit ñi day day bañ gis ne nit ñi amatu amatu amatuñ fuñ jëm amatu amuñu amuñu luñ lekk amuñu naan daañ daañ jóg daañu daañu sàkk pexe loolu ginnaaw loolu ak sañ foofu la kooku amul loolu moom man bu nan ne tekk nañ ne tekk nan muñ rek ne tekk waaw ndax ñoo ñoo yor baatu baatu adduna yi moom yàlla leen ko dox ñoo mën ko dénk kon fu ñu toll rek il faut ñu toll fa ak ñoom nun kay nan tal nan tal nan tal nan tal suñu bopp.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 ba loolu la jeex loolu ci la nekk ndax xew-xew démb bi fekk na bi ñu yëgee ne dëgg la nit ñi àgg nañ ci sonn ci xiif yooyu fekk na am xalaat ñu leen dimbalee lii moom la xew démb rek ñu ñu ko ñu ko xalaat ah te ne dimbale gi weesuwut weesuwut wax ak nguur gi góor leen li mbir mi ni mu demee.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 du yàgg du yàgg lekkoon naanoo moom euh, di mbooloo mbooloo mu lekkoon naanuñu loolu moom ñoo ñoo corona yem kon nag bu ñuy daw <laughs> daw corona yi <laughs> loolu amul solo loolu dellu ci suñu bopp ñi ju rëy nañ ko doyloo nañu góorgóorlu delloo suñu bopp duñu yàqal dara dara yedduna duñu ko yàqal xanaa dañu koy defaral kay barkeeloon ko waaye nag balaa loolu amit dafa day dool day day wér il faut il faut ñu dellu ñu dellu delloo ko yàlla loolu mooy mooy mooy suñ suñ suñ lépp teg ko ci loxo sëriñ bi loolu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 dara du ko mën a fajal lépp jafe-jafe yi ñuy wax ku ku ku wëlbatigul jox sa bopp day gën a kanam la jëm rek na yaa ko teg sa bopp dëgg la moom moom mooy dogal waaye nag kenn ku ne war naa xam war nga war nga xam lu baax ci yow nga wuti ko noonu noonu rek la kon nanu góorgóorlu nun ñëpp amul góor jigéen mag ak ndaw benn yoon bi dong la buñ ko defe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 jox arma dëkk bi ngir ki fi nekk ku ko deful itam lépp ci sa kaw lay dellu ak foo ak foo mën a ji ci sa rek lay dellu musiba rek lay dal loolu mën na naa kon nag maa ngi li ba balu ñëq ñi ah, balu ñëpp ndax man euh, lu baax rek laa bëgg bëgguma leneen waaw loolu it alhamdulilahi rabil alamina nit nit xëyut sotti waaye nag alhamdulilahi rabil alamina am na tawféex ba ba ba mu yóbbu ma foofu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 mooy safaan ba war a xam daal di jóg teel ci jóg ca teel góorgóorlu suñu bopp suñu kem kàttan buñ ko defee rek yàlla suñu bopp moom moom moom dimbali leenu rawatina nag di ngeen ko xam ne eh, am nga tawfeex yoo xam ne suñu borom dana boole Sëriñ Tuubaa muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem kon eh, nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax eh,